أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الحمد لله الذي آفانا في أجسادنا وآفانا في أبصارنا وآفانا في أسماعنا فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك mbokk yi ñoo ngi woon ak yéen ci dars kayfiyatu salaatu naka naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daan jullee naka la sunu yonent kayfiyatu salaat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sunu yonent alayhi salaatu wasalaam naka la doon jullee àndoon ak yéen ba jullit bi su kàbbaree kàbbaru armal fu muy teg loxo yi fu muy teg ay bëtam ban ñaan lay jàng balaa muy jàng fatiha su jàngee ñaan googu pare ba jàng fatiha saar bi mu ciy teg su kàbbaree bu saar bi jeexee mu kàbbar jëm ci rukkoo naka lay rukkoowee mu ne yarfa'u mukabbiran rafi'an yadayhi ila hazwa mankibayhi aw uznayhi jaa'ilan ra'sahu xiyaalu zahrihi waadi'an yadayhi ala rukbatayhi mufarriqan asaabi'ahu wa yatma'inna fi rukuu'ihi wa yaquul subhaana rabbiyal aziim wal afdalu an yukarriraha thalathan aw aksar wa yustahabbu an yaqula ma'a dhalika subhanaka allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma ighfir li mbokk jullit yi ñun ñëpp war nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax sunu jaamu yàlla rawatina julli naka la ñuy jullee ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel xale yi mag ñi góor ñi jigéen ñi ku nekk war nga bàyyi xel naka la yonent bi daan jullee ndax nga jullee noonu ndax kat saa yoo jullee beneen façon bu yonent bi julleewul woon yàlla du ko nangu saa yoo jullee beneen façon bu yonent bi julleewul woon yàlla du jël sa julli yàlla du ko nangu te yàlla su nanguwul sa julli soo deewee foo jëm ndax yàlla nanguwul sa julli sooy rukkoo yaa ngi taxaw jàng nga li nga war a jàng ba pare bay rukkoo rukkoo mooy lan mooy rukkoo mooy sëgg di jàpp ci sa óom yi nan nga koy defee ndax yow nu mu la neexee nga koy defee déedéet nan nga ko war a defee danga war a xool yonent bi naka la doon rukkoo wee nga rukkoo noonu waaye rek du rek naa wàcc rek jàpp sama óob yi déedéet affaire bi du sport xam nga ñi sport dañuy daw ba géej yëkkati seen loxo ci kaw jàpp seen óom dem ci suuf yow mi julli tamit da nga yëkkati sa loxo jàpp sa óom dem suuf est-ce que kon yéen a nuroo déedéet ñee dañuy yow da ngay da ngay julli da ngay jaamu yàlla kon du benn d'accord kee yëkkati na loxo yëkkati nga loxo ah waaye du benn kee day fo yow da ngay jaamu sa borom kon sooy rukkoo yarfa'u da ngay yëkkati yarfa'u day yëkkati moom waa ji day yëkkati loxo yi nii la defoon léegi mu ngi rukkoo day yëkkati loxo yi mu kabbiran mu ne allahu akbar rafian yadayhi mu yëkkati loxo yi ba fan ba ci nopp yi wala ba ci wala ba ci mbagg yi mu daal di def boppam bi ak ndiggam li mu tolloo ndigg li ak bopp bi ñooy tolloo ndigg li ak bopp bi jógal taxaw jógal taxaw ñu wane kii acca jàppal sa oom voilà du def nii bopp bi gis nga kenn du rukoowee nii nii nii kenn du ko rukoowee nii tamit kenn du ko rukoowee nii nii nii tamit kenn du ko rukoowee nan lay rukoowee day def nii bopp bi gis nga bopp bi ak ndigg li ñooy tolloo bopp bi ak ndigg li nga xam ne tey bu ñu tegoon fii benn leket leketu ndox la ñu teg fi paanu ndox du daanu waaw mu ngi nii bopp bi ak ndigg li fii ñooy tolloo kecc gis nga normal du ko wàcce ba mu ëpp du ko yéegal suy rukkoo du jàpp fii fii fii lii kenn du ko def ba pare buy rukkoo encore def na nii ah bopp bi ak ndigg li zëhr fii tolloo na léegi lan lay defaat mooy baaraami tànk yi naka la ko war a jàppee baaraam yi baaraam yi naka la war a jàppee óom yi ah mooy day tas baaraam yi nii tas ko day tas baaraam yi baaraam yi lay tas nii mu ngëb óom bi day ngëb óom yi ngëb gis nga da koy ngëb óom yi da nga koy ngëb nii noonu la ñuy rukoowee da ngay tas baaraam yi ngëb óom yi waa foofu kaj ñaata minute nga fay def nga dal na fa tekk ngay wax foofu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim mën nga kaa wax ñaata yoon wala lu ko ëpp bu la neexee nga boole ci subhanaka allahumma rabbana wa lakal hamd su la neexee nga boole ci subuhun quddusun rabbul malaikatu war ruux soo la neexee nga boole ci asgaar yu baree baree baree baree bari bu la neexee nga tànn yu baree bari di ko wax ndax lan ndax rukkoo bi nga yàgg foofu mën ngaa wax subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma xfir lii mën ngaa wax loolu après nga siggi ci rukkoo bi nga yëkkatiwaat sa loxo yi boo siggee ci rukkoo bi da nga yëkkatiwaat sa loxo yi daa di wax lan sami allahu liman hamida bu la neex nga yem foofu bu la neex nga yokk ci rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yarda rabbuna jalla wa ala bu la neexee nga yokk ci rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil'a as-samawati wal ardi wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd loolu yépp dangaa siggi ci rukoo bi léegi nag yaa ngi demaat ci suuf bu fekkee nag yow ma'muum nga ma'muum doo imaam waaye ma'muum nga lan mooy ma'muum ma'muum mooy lan mooy maamum mooy ki nekk ci ginnaaw imaam imaam moo nekk ci kanam ñi nekk ci ginnaaw imaam yëpp ay ay maamum lañ su fekkee nag yow léegi doo imaam maamum nga su boobaa bu ilmaan waxee sami allahu liman hamida yow da ngay wax rabbana walakal hamdu ba mu jeex waaye doo ko wax ci kaw a kaw di yuuxu ndànk rek nga koy wax ilimaan bu siggee ne sami allahu liman hamid taxaw nga ne rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fii mil alsamawati wal ardi wa mil ma baynahuma wa mil ma chita min cheyin baad nga wax loolu su boobaa sa loxo yi nga xam ne moom nga wàcce woon noo koy def danga koy yéegalaat ci dënn bi nga dooga nga dooga jëm ci suuf nag léegi di sujjóot ci benn saxaaba bu tudd Waa'il ibnu Hajar wa Sahl ibnu Saad radiyallahu anhuma ñoom nee nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la doon def kon ñaari saxaabaa ngi ni yoo xam ne ñoom xool nañ yonent bi nu mu doon jullee bi ñu paree ñu ne ñun dey yonent bi gis nañ ko ba mu siggee ci rukkoo dafa delloowaat loxo yi ci dënn ba ku njëkk ki nu mu tudd Waa'il ibnu Hajar keneen ki mu ngi tudd Sahl ibnu Saad ñaari saxaabaa ngi noonu da ngeen jàpp seen tur yi ku njëkk ki mu ngi tudd ku njëkk ki saxaaba bu njëkk bi nu mu tudd Waa'il beneen keneen ki nu mu tudd Sahl su ko defee léegi nag bëgg nañ ci yow nga wax allahu akbar nga jëm ci suuf waaye sa baaraam yi bi nga jëmee ci suuf sa baaraam yi noo koy tege ci suuf ak yan cër ngay teg ci suuf nit buy sujjóot juróom-ñaari cër lay teg ci suuf juróom-ñaar ban moo njëkk ñaari loxo yi ñoo njëkk dañuy tere ngay julli sa óom yi njëkk a wàcc loolu yonent bi nee na bu ngeen di julli bu leen yës comme nag nu muy yëse comme comme comme gëléem gëléem buy wàcc lan mooy njëkk a wàcc óom yi jullit nag buy julli lan mooy njëkk a wàcc loxo yi baaraami loxo yi tinq yi mooy njëkk a wàcc ñoom ñooy njëkk a wàcc ci suuf suñuy wàcc da nga leen di képp ñoom ñaar ñoom ñëpp juróomi baaraam yi ñu sësante ñu jublu penku nga daal di koy wàcce ba mooy benn ñaar a ngi noonu wàcce nga ñaar ñaari óom yi wàcc mu nekk ñaari cati baaraam yi wàcc tànk yi cati baaraam yi da nga leen di samp cati baaraam yi yii lii lii da nga leen di samp ci suuf nii booy sujjóot da nga leen di samp kenn du leen lem ngay di samp mu nekk ñaata jëbi ak bakkan bi nga teg ko mu nekk ñaata set set set ndax jë ak bakkan ñoo bokk fu ñu nekk ci benn place lañ nekk séparé wuñ yonent bi nee na al uznaani min ar raasi ñaari nopp ci bopp la bokk gis ngeen noonu la ñuy jullee nga sujjóot sooy sujjóot doo képp sa loxo yi ci sa dënn bi nii sujjóotal nii kenn du sujjóote nii diggante dënn bi ak óom yi pooj yi dafa war a écarté wu incliné wu mel ne def ni ah mel ne équerre nii koy def nii nii fii ak fii day sorante def nii loxo yi def nii ci kanamu loxo yi booy sujjóot loxo yaa ngi nekk ci wetu nopp yi nii la ñuy sujjóotee nii nii biir bi du tàncu ci pooj yi doo jël sa biir bi indi ko ci pooj yi sa loxo yi doo leen naj ci sa dënn bi sa loxo baaraam yi tënk yi fii yaa ngi koy indi ci sa wetu nopp yi nopp yi nii nga xam ne tey bu- boo sujootoon ñu jël jaasi dagg nopp bi tëf nopp bi fii lay daanu ci sa kaw tënk yi lay daanu nii nii la ñuy sujootee nii kenn du def nii kenn du def nii ket xayrul umuri awsatuha ci digg bi ngay yem am na ñoo xam ne bu ñuy sujjóot dañuy tàweeku daanaka dañuy tëdd daanaka li tëdd la am na ñoo xam ne aussi ñoom dañuy bloqué seen dañuy jël seen biir bi tànc ko jël ci seen wetu pooj yi seen loxo yi duñ ko tàlli loolu kenn du ko sujjóotee am na ñoo xam ne aussi bu ñuy sujjóot dañuy taf tafi taf taf mel ni ginaar guy cof ceeb nga xam ne bu ñu sëggee du ñu siggi benn benn sëgg bi hum, euh, suñu paree dinaa leen woon vidéo benn vidéo benn waay buy julli su boobaa waa ji léegi bu sujjóotee lu muy wax subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal mu wax ko ñetti yoon wala yu ëpp foofu tamit bëgg nañ mu wax subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir lii am na yeneen azkaar yu bëree bëri subuhun quddusun rabbul malaa'ika war ruux subhaana zil jabaruuti wal malakuuti wal kibriyaa wal azama am na yeneen asgaar yu bëree bëri ci asgaaru sujud yeneen bi nee na bu ngeen di julli bu ngeen rukoowee màggal leen yàlla su ngeen sujootee ñaan leen fa aksiru fiihi du'a mu ne amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'a ngalawaay bu ngeen di rukoowee bu ngeen jàppee oom yi màggal leen yàlla subuhun quddusun rabbul malaika war ruux subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyaa wal azama subhaana rabbiyal azim dee leen màggal yàlla bu ngeen rukkoo su ngeen sujjóotee nag ngeen bëri lu ngeen di ñaan yàlla ngeen ñaan abdullahi ibnu mubarak nee na man su ma sujjóotoon damay ñaan di ñaan yàlla di ko ñaan ba ñaan ko xorom si nga xam ne sama soxna daf koy xorome cin bi sax dama koy ñaan yàlla duma ko bàyyi maanaam dama koy ñaan di ko ñaan ba de yàlla ah sama soxna de- day soxla xorom de bi mu may toggal ah ah, day soxla xorom de yàlla soxla naa xorom allahu akbar xoola koo xam ne day ñaan di ñaan ba ba ba ñaan xorom ndax dina fàtte leneen waaw waaw ndeysaan allahu akbar ndeysaan ñaan jaamu yàlla bu mag la ñaan ñaan jaamu yàlla la yàlla nee na bu ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale te ñi nga xam ne dañoo rëy ba duñ ma ñaan safara laa leen jëme yàlla nee na su ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum su ngeen ma dul woon ñaan man yàlla du ma leen faale te gaa yi ngand ngandlu inna allazina yastakbiruna an ibadati ñii ñaan di ngand ngandlu duñ jaamu yàlla duñ ñaan yàlla yàlla nee na sayduxuluna jahannama daaxirin dama leen di dugal safara moo tax ku dul ñaan yàlla dalay mere waaw allahu in tarakta su'aalahu yaxtab wa bani aadama hiina yus'alu yaxtab ndeysaan sooy ñaan nit bi su nekk nga ne ko may ma may ma may ma may ma nu mu lay def lay mere yàlla nag soo ko newul may ma may ma mu mere la doomu aadama boo ko ne may ma may ma mu mere la allahu akbar allahu in tarakta su'alahu yaxdabu wa bani aadama hiina yusalu yaxdabu doomu aadama soo koy wax may ma may ma même booy ñëw këram sax di ko ñaan su la njëkkee gis nu muy def wala mu tëj buntu këram ku ne lan la mu ne kii non kii kii kii kii bis bu nekk rek bis bu nekk rek mu ñëw fi bis bu nekk rek mu ñëw fi bis bu nekk rek mu ñëw fi waaye waaw man man man dama am lu ma joxe uy uy mais kii kii kii xanaa man rek la xam. yaa ndeysaan allah akbar doomu aadama yàlla nag moom boo ko dul ñaan dalay mere yàlla daa bëgg bis boo xëyee rek naan ay yàlla yàlla yàlla jox ma ay yàlla ay yàlla def ma ma mokkal alxuraan yàlla def ma jullit ay yàlla sàmm ma yàlla teg ma ci siraatal mustaqim waaw yàlla daa bëgg su nekk rek suba ngoon guddeeg bëccëg julli julli juróom saa yoo jullee ba pare rek nga tàllal ko loxo soo waa day kontaan ay xool leen sama jaam bi xam na ne man kenn maa am may ñaan moo tax dama koy jox dama koy jox ba mu doyat waaw bu dee sa bu doon sa papa la sax nga koy ñaan di papa papa mu ne oo kii kii kii lu mel nii allahu akbar yàlla nag boo ko dul ñaan dalay mere doomu aadama boo koy ñaan dalay mere allahu in tarakta su'alahu wa bani aadama hiina yusalu yadabu allahu akbar mbokk yi soo sujjootee dangay ñaan yàlla soo waxee say azkar ba pare yi ñuy wax ci sujjóot subhaana rabbiyal a'la ah nga nga nga def say azkar ba pare loo ciy teg ngay ñaan yàlla nag léegi nag sa aajo aduna ak sa aajo allaaxira ngay ñaan yàlla aajoy adina ak aajoy allaaxira nga ñaan yàlla njëriñu aduna nga ñaan yàlla mu musal la nga ñaan yàlla mu muccal la nga ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def la ab jullit yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su ngeen sujjootee wax leen rabbi xfir lii ñaan leen yàlla yàlla jéggal leen après nga siggi ci rukkoo bi nga toog première toog bi ngay toog yaa ngi toog ci sa tànku càmmoñ nga samp tànk ndeyjoor bi comme nii ma toogee nii baaraam yi del bàyyi xel ne bis bu nekk da nga leen di leen di samp yaa ngi toog ci tànku ci tànku tànku càmmoñ nga samp tànk ndeyjoor bi gis nga nii bii nga toog ci nii lañu nii première toog bi ni ngay def soo demee nag ba julli gi fu muy feewee su boobaa dootoo toog ci tànk càmmoñ bi da ngay wàcc nga toog tànk càmmoñ bi nekk ci biir cati baaraam yi génn fii nga samp bi nii lañuy toogee fin wu julli bépp julli boo xam ne julli ñeenti ràkka la nii la ñuy toogee julli ñaari ràkka nii la ñuy toogee julli ñaari ràkka ci kaw tànk càmmoñ bi ngay toog samp tànk ndeyjoor bi ñeenti ràkka yi nag dootoo toog ci tànk bi tànk bi da nga koy wàcc da nga koy wàcc daal di toog ci suuf ak sa toogukaay bi sa toogukaay bi xam ngeen toogukaay lii mooy toogukaay lii lii bu doon ñeenti ñeenti ràkk la Moussa léegi dootul toogee nii day wàcc tànk bi wàccal tànk bi dugalal tànk bi acca wàcc gis nga mu ngi nii léegi nag mu samp bii mu ngi naan gis ngeen nii la ñuy toogee ñeenti ràkk comme ni ma toogee nii ndeke julli gis ngeen du rek allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu allahu akbar assalamu alaykum alaman déedéet loolu lu julli de ndeke julli dañ koy jàng julli dañ koy jàng julli daa am un am deux am trois am quatre am cinq am six am sept am huit am neuf am dix julli dafa am xool dafa am fu muy jógee dafa am fu muy jógee di jaar di jàll di jàll di jàll di jàll ba yegsi ba am fin asalaamualeykum soo siggee da ngay toog toogaay boobu diggante ñaari suju rukkoo yi diggante ñaari sujuud yi am na lu ñu fay wax diggante ñaari sujuud yi boo sujootee bay siggi di toog am nga looy wax soo sujootootee bay ñëwaat toog di sëlmal am nga looy wax su boobaa nag léegi incha allah ñu yem foofu ba suba ak jaam biiznillahi tabaraka wa taala bu ñu yàlla mayee yeewu ñu yeggali ko ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal nu tawfiix yàlla sàmmal nu boppam yàlla bañ ñeeg bàyyee sunu bopp nu alku ku yàlla bàyyi ak sa bopp rek nga alku kon yàlla na nu yàlla sàmm asalaamualeykum wa rahmatullah